attendant Pape Samba nga indi ñu image bi nga xamante ni moom la ñuy ngi son euh, sànq euh, kon benn béy buy nàmp kon na ci xaj ndax dagan na wala daganul bisimilah oustaz. waaw loolu pratiquement transition bi day yomb. ndax maa ngi wax ne amul benn doomu aadama ba nga xamante ni bëgg nga lor sa bopp. Mhm. wala nga gaañ sa bopp. te suñu borom subhanahu wa lépp la nga xamante ni daf ñuy lor. Mhm. wala daf ñuy gaañ rek wala daf ñuy indil problème nee na loolu ko moytandiku. Mhm. boo demee si alquran moo tax toujours yàlla am yu bëri ya nga xamante ne daf ko leeral lii dagan na lekk leen ko mm-hmm. lii dagan na naan leen ko mm-hmm. lii dagan na sol leen ko mm-hmm. lii daganul moytu leen ko dand leen ko bu leen ko def kon ñun doomu adama ñoo war a am dégg soit ñu def te lii yàlla sant ñu def ko moo gën si ñun àdduna moo gën si ñun li nga xam ne moo di àllaaxira yàlla nag dafa bind doomu aadama bind yeneen bindeef ya nga xamante ni neen dafa leen tàggat moom yàlla bindeef yooyu ngir doomu aadama dund mën nekk dund ba nga xamante ni bu yéwén la tey doomu aadama mooy jàpp rendi tudd yàlla rendi man ko lekk mu dagan doomu aadama mooy jàpp bëy tudd yàlla rendi mu mën a dagan xar ak yeneen mala yi nga xamante yàlla subhanahu wa taala daganal na ko yëpp ngir ñu lekk ko boo demee si alquran yàlla wax na yàlla gëm yàlla ni ngeen lekk si li nga xamante moom laa bind tàggatal leen ko te mu teey te dagan man mbir mën na teey te du dagan mbir mën na dagan te du teey mm. tey jii ni bayu jàmbur soo ko fekkee rendi ko dagan na de waaye teeyul parce que moomuloo ko mais la nga teey ta dagan hmm. mbir itam mën na dagan te du teey hmm. du dëgg bële dagan na te teeyul mbir mën na teey tamit te du te du te du dagan hmm. mën nga am sa bëy mu am nu mu faatoo génne àdduna yàlla na la teey na ndax yaa ko moom daganul pour nga lekk ko kon loolu dafa nekk la nga xamante ni dañ ko dañ ko dañ ko war a leeral image bi nag boo gisee mu mu mu frappé ma ba ma indi ko parce que dama ne woon rubrique bi da siy bokk lépp loo xamante ni dañ koy gis si internet bi tamu mu am liaison link ak diine rek dañ koy indi ngir leeral ko parce que biñ ma ko yónnee dafa suscité woon benn ay réaction yu bëree bëri ñi naan dagan na ñi naan daganul parce que bëy buy nàmp si xaj te ku ne xam na ne xaj daganul ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne woon kullu dhi naabin min as-sibaa'i fa akluhu xaraamun wa kullu dhi mixyal mixlatin mix mix mix labin min at-tayri nee na lépp la nga xamante dafa am ay seel xam nga seel. seel mooy moom la ñuy wax canine. canine si français. Mhm. lépp lu am kanin yonent sa sallallahu alayhi wasallam nee lekk ko daganul. mbaam amul ah, dafa dafa xaraam maa ngi ñëw. maa ngi ñëw mbaam amul kanin mais maa ngi ñëw lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mais alquran am na lu mu ñu wax mhm. mu leer si côté mbaam boobu ngay wax mhm. beneen bi itam mooy li nga xamante ni nee na lépp loo xamante dafa am ay griffes girif wee ah. lekk ko itam day nekk la nga xamante ni dafa dafa dafa xaram lu mel ni aigle par exemple aigle ah. si si picc yu naaw la waaw waaw waaw aigle mooy mooy emblème mooy emblème u États-Unis voilà aigle mhm. lekk ko si l'islam dafa dafa dafa xaram Mali ah non non non moi je parle des États-Unis ah dégg nga donc aigle lekk ko dafa xaraam parce dafa am ay griffes lu mel ni lu am ay canine mooy seel ñaari bëñ yooyu lu mel ni ay segg lu mel ni ay gaynde lu mel ni ay muus ak yu demee noonu itam lekk ko si li nga xamante moom mooy di diine l'islam l'islam da ko dàq yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daf ko daf ko dàq ko xaraamal boo ñëwee si li nga xamante moom nga doon wax léegi yàlla dafa wax ne xurimat alaykumul maytatu lépp la nga xamante ne nii médd la dafa xaraam mooy lu dee ba pare lu dee ba pare pour lekk wa dam ak deret hmm? di ko naan dafa xaram si lislaam laay wax de ba tey walax mul xinziiri ak yàpp mbaam bi nga doon wax ak mbaam xuux waaw dafa xaraam si lislaam lay wax ba tey de wama uhilla li wama uhilla li xayrillaahi bihi ak la nga xamante ne nii dañ ko rendi te yàlla taxul mooy du loo xamante c'est pas halal c'est pas halal waaw donc non seulement bismillah bi mën nga ko fàtte mais bu fekkee ne dañ ko def pour yëfu ceddo loolu lekk ko day xaraam ndax tuddoo si yàlla te yàlla taxul kon loolu lekk ko day daal day xaraam wal mun wal wal mun xaniqatu ak li nga xamante ni nga am sa bëy waaw nga am sa bëy benn laaj waaw ku nekk benn laaj waaw sa bëy mu fat yow moom sa laaj day gudd nga am sa xar mu jékki-jékki étouffé te bi muy étouffé fekk la fa nga ñëw fekk ne étouffement moo ko rey boobu dafa xaraam danga koy considéré comme medd ak li nga xamante ni moom moo di wal ma udatu ak li nga xamante ni dañ da ko doon dàq dóor kayet wala xeer mu jaare fa dee ndax xam loo hémorragie interne moo ko dee wala leneen bu rendi medd lañ koy jàpp bu fekkee da nga ñëw fekk dafa dee si loolu mm-hmm. wal mun xani wal mu taradiyatu ak li nga xam na am mus naa ko gis si ay image na ti nii na ti xatu ak li ay xar yu mbëkkante ay xar yu mbëkkante wala ay ay ay ay nag yu mbëkkante ba benn bi jam benn bi ak béjjit bi nga ñëw fekk mu dee mu wër na la kii xar bi moo ko mbëkk wala nag bi moo ko mbëkk mu dee boobu ñëw fekk mu dee bu rendi mais ñeent yi mu lim boo ñëw mu wër na la par exemple lii deewagul dafa fat mu ngi waaj a dee wala dafa étouffé wala dafa dafa daanu wala dafa nàngam boobaa lislaam may na la nga rendi ko mooy boo ñëwee fekk mu dee rek yow jàppal ne medd la donc boobu dafa ak li nga xamante nii ma ñëw rek si ñaar lii ma doon wax sànq ak lépp la nga xamante nii yi am ay seel ñoo ko rey nga ñëw fekk par exemple benn segg songu sa troupeau <coughs> matt fa nga nag ba mu dee nga ne ah fii rek la matt si pooj bi mu dee kon garaawul mën naa rendi déedéet yàlla neenu yooyu yëpp dafa xaraam nañ ko nañ ko moytu léegi boo ñëwee si béy bii doon nàmp xaj bi béy bii doon nàmp xaj bi borom xam-xam yi dafa am wax bu yu bëri yuñ si wax ñii nee nañu euh, yàppam dañ koy sib dootuñ ko lekk bu fekkee ne da nga ko rendi sentir ne xetu yàpp bi changé na mm-hmm. xëy na lii xëñatul yàpp béy mooy na par exemple meewu xaj bi am na si impact ba xet bi changé ne nañ bu boobaa day xaraam loolu day day dañ koy sib loolu ñu ko wax mooy waa al ah. waaw mooy al ahnaaf mais am na ña nga xamante ni xanaa bi lay ñoom dee nañ boobaa pendant quarante jours jox ko muy lekk ngooñ di naan ndox boobaa loolu dina setal li nga xamante moom moo di soowu xaj bi donte la dafa dugg si deretam bu boobaa di ko mën a lekk sans problème ñii nee nañ dafa xaraam wala dañ ko si chafi yooyu mooy mu nee nañ boo ñëwee fekk xeetu yàpp bi itam changé comme li nga xamante ni moom la axnaaf yi moom la axnaaf yi wax mais si bi gën a wér mm. gën a gàtt gën a noppal mm. mooy que boo ñëwee gis bëy bi wala xar bi nàmp si li nga xamante ni moom moo di meewu xaj bi nee nañ bàyyi ko juróom-ñaari fan minimum. 7 jours 7 jours. da nga xamante ni. doo ko rey si biir juróom-ñaari fan yooyu nga di ko jox muy lekk lu dagan lu mel ni ngooñ di ko jox muy naan ndox ba nga xamante ni si juróom-ñaari fan yi euh, li nga xamante ni moom moo di meew xaj bi set na si yàpp bi boo nga mën ko tër mën ko rendi te du am benn problème mm-hmm, mm-hmm. donc loolu c'était c'est bon à mm-hmm. savoir jullit bu nekk war na ko xam ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day jiital troupeau waaw troupeau yi loolu laa la bëggoon posé waaw troupeau yi yi topp si te bu bëy bii nàmp na si xaj bi li gën mooy nga bàyyi ko juróom-ñaari fan di ko dundale da mm. nga xam ne moo di ak ngooñ ak ndox nee nañ bu boobaa <coughs> meewu xaj bi dana wàcc oustaz oustaz léegi ñu ñëw ku nekk benn question voilà rapidement ex on commence par toi voilà non non ak day suñu kilifa euh, garmi <laughs> <laughs> euh, su ma ñëwee su ma ñëwee par exemple ci boîte de nuit mm-hmm. ma jënd fa yàpp ma commandé. Mhm. yàpp ci boîte de nuit ngay commandé waaw nu am na. Mhm. Euh, ñu am na ñu ñu am ñu defal la si am na ay yàpp yoo xamante ne tu peux manger. oui oui ah ñu ñu ma laaj serveur bi pour mu andil ma euh, dibi. Mhm. ndax dibi boobu dagan nañ ci man ma lekk ko. Ah, bu fekkente ne dibi bi du yàpp bu ñu xaraamal su lislaam bu dul yàpp mbaam du yàpp xaj comme yi ñu fi lima lima lim noonu dara nekku si pour nga lekk ko bërëb ba nga ko jëndee du foofu la ñuy déterminer ndax dagan na wala daganul waaye la nga jënd continue ba la ñuy xool exemple góor ak jigéen bu ñu leen mayee si farata si yàlla sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ñaar bu ñu àndee seen biir néeg ñu jéggal ma si kàddu gi sëy lu ñu fay am ay tuyaaba lañ leen di bindal du dëgg waaye bu ñu génneen def ko si mbedd mi bàkkaar la ñuy am et pourtant dagadante nañ donc lieu bi mooy déterminer affaire bi bu boobaa mais tey jii lii ba nga jënd jëndee amul lii nga xamante ni moom nga jënd. la xool ndax dagan na wala dagan na mais ba moom leneen la. d'accord ah mooy question ci. xalaal bi xalaal beeg c'est alalul débat la woon. xalaal waaw bari na déjà bien une question. tamit. waaw waaw boo xam ne euh, sénégalaise la buy nekk ju respecté ju diineem mais moom dafay laajte ba xam ndax. Euh, pour mu laaj pour mu confirmer ne lii alal na dañu leen wax ne lii c'est halal. Mm-hmm. fi ñu fi ñu koy jaayee c'est halal la yooyu mais rey ba fekkewuñu ko. Mm-hmm. rey ba fekkewuñu xamuñu man man ñoo wax ne machine moo koy rey. Mm-hmm. waaw tey machine yooyu noonu moom mooy rey machine bay rey par exemple li am solo mooy ka nga xamante moom mooy taxaw di rey tey jii il faut ñu def benn taxaw seetlu gis nga chrétien bu rendee xar yaa ngi dégg wala juif rendi xar invité la nga lekk dagan na mhm. wa taamu alladina utul kitaabi xillan xillun lakum wa taamukum xillun lahum la alquran wax yàlla nee na ñoom seen ay ñam dagan na pour yéen bu fekkente ne liñ leen jox nekkul lu seen diine araamal bu dee yàppu xar la parce que ahlul kitaab la ñu bokk mhm. maanaam borom ñañ téere les gens du livre mhm. ils ont un livre <coughs> ba nga xamante ni comme ñun ni ñu amee livre tawraat jaar na fi mhm. zabour jaar na fi ñun euh, euh, li nga xam injil jaar na fi ñun ñu ngeeg alquranul karim donc on les appelle les gens du livre ñooñu yàlla nee na seen ñam bu ñu ko toggee bu fekkente ne yàpp mbaam xuux nekku si yàpp mbaam saf newu si lu xaraam si l'islam bu ñu leen woowee dem leen ngeen lekk wala bu ñu leen yekkalee amul problème Mm-hmm. mais li ñuy bañ mooy nit ren di ngir leneen lu dul borom bi subhaanahu wa léegi nag boo ñëwee si problème machine yooyu noonu mm-hmm. man maa ngi Europe ñëw naa gis naa par exemple ñu def ay viande xalaal comme ni ñu koy defee si grande surface am na sax ay ay yi nga xamante ni spécial xalaal man bu ma ñëwee sama yoon nekkul si ka ko rendi ban heure la ko rendi ak fu ñu ko rendee xam nga la mm. na xamante ni yàlla daf ko si alquran nee na bu leen di gëstu la nga xamante ni bu ñu leen joxee réponse bi mu nekk benn lu diis si yéen mm-hmm. ba du ngeen mën a jëfandikoo li nga xamante ni moom ngeen mais na jàpp daal ne xalaal la jàppal ne xalaal la ba jamono bu doxee nag ba nga ñëw ba gisal sa bopp mm-hmm. mu wër na lii kat ah du xalaal boobaa mën nga ko fat mais comme xalaal lañ si bind <coughs> jàppal ne xalaal la ba ker balaa ngay gis am naa à lettre de <laughs> mais moom nee na il est incontournable le jeudi et effectivement il est incontournable. lettre musulman lañu doon voilà jeudi yow euh, man aussi dama am benn benn. benn contribution boo xamante benn laaj boo xamante ni dafay xaw a lëndëm ci sama bopp lu ci bëri. Euh, parce que man itamit damay bëgg comme ñun ñëpp wala comme sénégalais yëpp yi nga xamante ne ku ci nekk bëgg nga di gëstu ci sa diine. mas naa di waxtaan ak sama ay xarit. ñuy werante ci affaire yàppu mbaam. ñuy wax ni que euh, jullit yi par exemple ñun. Euh, terewuñu yàpp mbaam parce que dafa dafa dafa dafa xaraam dans le vrai sens du terme. Mm. mais dañu ko tere ndax yërmande boo xamante ni. Mm. moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon ci moom mm. ndax dafa mas ci taarix ñu ne dafa mas di dem fenn mar gisul lu mu naan mhm. euh, mbaam moo gas mhm. ndox génn pour moom mu naan mhm. donc yërmande moo taxoon mu nekk moom xeetam buñ ko lekk euh, euh, est-ce que loolu histoire bu vrai la parce que man depuis boobu ba tey j'avoue que daf may travailler sama esprit te bëgg naa ci am quand même ay ay ay certitude xam nga xam nga tey yonent sallallahu alayhi wasallam bu xaraamalee yàlla moo ko wax xaraamalal te moom moo xaraamal li nga xamante ni moom moo di yàpp mbaam léegi nag histoire bi nga xamante ni moom nga nettali man de wax dëgg yàlla amul fenn fu ma ko jàngee te hmm. ne na dem mu mar mbaam gas mu naan wala affaire yooyu noonu nekkul foofu bu doon loolu la ak yërmande <coughs> wax quand même waaw xaraam mooy la nga xamante ni daganul si jullit on organise le débat ngir mu def ko hmm. kon côté boobu noonu da ñuy jël ne yàpp mbaam du question ay yërmande mais tey jii nii bari na la nga xamante ni si li lislaam xaraam ak ngir ñu lekk ko boo demee ba si biir scientifique scientifique euh, confirmé nañ loolu hmm. toujours dina am benn xeetu feebar ba nga xamante moom lay jox doomu aadama bi soit mu nangu ko wala mu bañ ko nangu donc pour éviter ñu ñun feebar yooyu noonu ak yi nga xamante ne moom mooy jóge si euh, euh, euh, yu demee noonu si mala yooyu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaraamal ko moo tax suñu borom subhanahu wa taala xaraamal ko mooy yi ñu tudde al jalaala al jalaala min mhm. al xayawaanaat ci animaux yi daf si amee comme par exemple yi nekk lekkee yi nga xamante ni deseti medd yi la ñuy dundee ak yi demee noonu mhm. yooyu l'islam daf ko xaraamal na ko bu ko kenn lekk ko bàkkaar bàkkaar mais boo ko xamul boo ko xamul du baax xaraam na xaraam na boo ko xamul du bàkkaar dem nga lekk bay dem nga lekk béykoon te doo ko xam doo xam ne yàpp kii na. mais xam nga ne fi mu nii mbaam dafa xaram boo ko lekkee. day <laughs> na benn anecdote rek man laa lay jox man laa jox question. <laughs> waaw xamee ni euh, Marie Justine jóge na jóge na Rome. waaw. <laughs> ñu demandé ma ne dama ko yóbbul mbaam. mbaam yóbbul ko oustaz Baba ne ma garmi yemal ma a ko dagan na wala dagalu mu ne ma li a def dara dagalu ci ma ne ko nag ah ma ne ko dëgg a <laughs> waroon naa ko dara ko dogal dogal ko laaj lu boo ànd <laughs> ko yóbbul mbaam <laughs> waaw mbaam laa ko bëggoon yóbbu rom la ko rajo bi yóbbu rek nga waroon ko yóbbul nag nga waroon ko yóbbul nag te moom te moom waaw loolu laa la bëgg a wax da nga ko waroon yóbbul nag mais yow nga xam ne que yow mbaam la la bëgg nga kii ak a mën côtelette côtelette mbaam moom ci seen jogo <laughs> en tout cas merci Oustaz Assane donc mu ngi noonu c'était juste pour andi loolu uh-huh. pour baaxee ko parce que ñu bari ñu ngi si doon tergiversé si biir internet bi ak réseaux sociaux yi dagan na dagan je pense que euh, li ñu si andi leer na li am sol rek mooy jullit bu nekk nga fexe di tënku sa diine li mu la mooy nga jël ko li mu la tere nga bàyyi ko ndax jullit noonu lay fonctionner lu ñu la may nga jël lu ñu la tere itam nga man damay ñëw jël sa njël nii nga bàyyi ah, ah xam nga benn ñaata ak hmm. benn ak saam ñaata xam nga bokkul. su ma war naa daw saam ñaata la. Ah? waaw di te naan. benn ñaata rek wóor. waaw kon benn ñaata ak saam ñaata. oustaz kontaan uh, uh-huh. dëgg yàlla ci. Uh, engouement bi tabaarakallah engouement bi ak ni mu deme toujours li may wax rek donc. toujours yéen bi da ngeen koy accessible la ñëpp mën cee jot waaye yàlla dina la lakk dafa metti loolu. wax ah, naa ko fii bi passé yàlla dafa yor carotte. yor bâton jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko del brandir carotte bi ba ñëpp gis ko mhm. waaye itam del brandir bâton bi ba ñëpp gis ko te wax naa ko dinaa ko répété mhm. safara dina am ñu fa dem de yàlla bu ñu si bokk nag amiin amiin am solo nañ jàmm ah, ah, amiin amiin oustaz Assane en tout cas merci <laughs> beaucoup euh, merci si contribution bi nga xamante ni indi na ko yal na yàlla ñun ñëpp suñu yaram yi uh, daal di aramal safara bëgg mboolem jullit uh, uh, voilà ñu ñëpp ñu ñu ñaan ko merci Oustaz Assane ci leexal yi nga indil ci photo bi ñu wan bi ñu won sànq léegi nag